conseil constitutionnel n'a pas ni tam éliminé Ousmane Sonko euh, réew bu Sénégal dafa faire exactement Samba fi nga nekkoon sànq. Euh, juste euh, conseil constitutionnel Macky qui la ñu fa quoi. Hmm. ils ne sont pas indépendants. parce que boo gisee ñu éliminer Sonko ci lii amuñu courage amuñu détermination ci est tapal lañ nek comme ko ci amuñu détermination oui ñoom neneen cour suprême ñoo leen yónnee décision bi. non cour suprême conseil constitutionnel institution là, hmm. war na institution bu indépendant. man mais indépendant en tant que les sages. non non c'est pas des sages man suis nek sage. je suis institution. man ci man ci institution bi la nek man hmm. ma fay doxal. Hmm. Eh? Présent munul wax ma ma ma ma décision. Kenen euh, le ci sama loxo la nek, Sonko waro na candidat. wa dem ci élection yi. ni hmm. déggoo té coalition yëpp bokk. loolu moy dëgg mais comme ko ci yef caakaan lañ nek ak yef tapalé ni rek lañ lañ mun a les sept sages ñu jël décision. me parle pas de sages. mais sont des sages. toi ni en personne tu es tu es un sage. est-ce que dama xam yalla lan la def ci yow. Mais ils ne sont pas des sages. Ils Pourquoi ne sont pas indépendants. Oh, non, ils ne sont pas indépendants. Pourquoi on, on enseigne le droit mm. On devait même pas, on devait même pas instaurer le droit depuis 2021. Parce qu'on ne juge pas ici le droit. Il n'y a, pas, y a pas le droit ici au Sénégal. Bon, le droit, hmm. euh, Les gens, je, fais le droit, j'enseigne le droit, je suis maître, c'est pas ça. Conseil constitutionnel, hmm, indépendant ils ont édicté par le président de la république président de la république nous doxal ñun Sénégal a lan Sénégal trois pouvoir ma xamal la ko. ñaata pouvoir moo fi benn pouvoir executif mais pouvoir législatif nag. amul. Euh, loo xam ne si suffrage direct. pour ñooñu ñooñu xamul population bi moo leen di teg foofu. Hmm. Macky lépp lu mu proposé ñu voté ko. Hmm. yaa dégg même bu arrangé wul réew hmm. moo tax fii nii amul amul législatif amul euh, judiciaire lii exécutif kese moo fi. waaw alors exécutif rek moobu su ma fi daal di nekk jàpp na ni élimination Ousmane Sonko dafa xaw bidon exactement euh, ñaar. <coughs> waaw gis nga le le le le cas Sonko je pense que déjà euh, presque liñ ci war a wax yëpp wax nañ ko <coughs> te liñ ci gis euh, maanaam lenn rek ci lenn rek lay wër. Mm-hmm. mooy que ni c'était une candidature qui n'arrangeait pas beaucoup de personnes. D'accord. beaucoup de personnes ñenn ci bureau opposition. Euh, ñi ci ëpp ci au parti au pouvoir de euh, mais aussi il ne faut pas que nous fassions euh, certains certaines multinationales qui nga mm. Sénégal alors que Ousmane Sonko s'est prononcé. Mm. sur cette situation wax ci la renégociation la renégociation de certains contrats mm. Mm. donc ce qui laisse dire que ñooñu noonu c'est seeni seeni milliards yoo xamante ne investir nañ ko ci réew mi euh, ki mel ni Ousmane Sonko tey bu faloo euh, lépp mun na na saxaay euh, nga demaat ci yeneen réew nga xamante ne mooy France mu am benn système boo xamante ne na ci sénégalais yi nootee na ci maanaam suñu système bi nga xool tey des des des personnes comme Ousmane Sonko des personnes comme Babacar Diop même yenen mën na la si del sax ñeneen ñoo xamantene tay c'est des gens qui s'activent euh, constamment ci élimination euh, système bo xamantene ne teg nañ ko fi te mosul arrangé mi hmm. bo xolé tay l'élimination de la candidature de ces candidatures là euh, ça arrange le pouvoir nee naa Ousmane Sonko xëy mom hmm. euh, yalla dafa def ni en tout cas dafa tollu ci digg dooleem hmm. Sénégal ñëpp diko ciow mais par contre bo démé euh, la vocation de servir de Babacar Diop boo jang da ngay xam ki ni nii un pur panafricain ki ni panafricain deug la il ne défend que le panafricanisme mm-hmm. te tay bo xolé c'est maanaam genre esprit yoy noonu candidat yu raisonné ni la majeure partie dañ leen écrasé nous ñëpp éliminé nañ leen motax nak bo xolé c'est quelque chose qui nga ça va au delà du conseil constitutionnel mm. D'abord, la question d'élimination, c'est une question politique mm. maintenant dañoo mbubboo justice rek pour nous outi lay mm. parce que euh, le cas de Mame nous Niang xam nañ mënul invalider candidature bu sérieuse bo démé le cas de Adji euh, innocenté nañ Ousmane Sonko corruption mineure lañ ko lañ ko hmm. daanee té loolu nonu mënu ko téré bokku ci élection hmm. nga démat ci yeneen accusation nga xamante ñi ngi nane euh, nu mu incitation euh, à la violence au terrorisme ainsi de suite bo xolé yoy nonu ay accusation yi nga xam ne ñu ngi tegu ci kawam té mu ngi bénéficier jusqu'à l'heure sa présomption d'innocence manam des faits yo xamante amul benn daan bu téggu ci kawam donc bo jëlee li yëpp nga bolé ko on conseil constitutionnel bu lay wax ni cour suprême mo atté hmm si ci décision cour suprême lay soukandiko alors que moom contentieux électoral la moom juge électoral donc moom ci maanaam ci fànn bu ñu toll nii ak la question d'Ousmane Sonko moom moo fi ëpp gëdd que. Hmm. conseil constitutionnel ko hmm. euh, nu mu cour suprême. par contre moom mooy lay ay layam ci cadre cour suprême parfois nag dañuy jàpp ni sénégalais duñ xalaat mais ma yaakaar ni lenn rek moo leen mën a noppal ne leen dañoo éliminer Ousmane Sonko parce que c'est une décision politique ñun ñu mën a. jàll ci leneen alors euh, euh, c'est une décision politique mais Samba ñu gisoon ni tamit ñu waxoon que ni bis bu bi jeexee mën impacté sur sa candidature exactement euh, est-ce que réellement une décision politique. purement politique euh, même vous parle parle Fallou décision politique là. y a la ko mm-hmm. ci. plateau. Euh, décision yep, mm-hmm. écarter candidat éliminer candidat poursuivre candidat à la justice. Yep, c'est des décisions politiques eh. commanditées par le président de la République. Eh. Et, c'est Vous voyez hmm. une décision politique, vous euh, yo hamne, dafa neex xam. Tay tay leader. Hama net ko nit hmm. da koy hmm. Te nous, nous tax ñu jóge ci ci ci ci Ousmane Sonko fu comme quoi il a été écarté par l'État. Nous ñu pas Mame Boye hein Mamboy, c'est impératif. Nous hmm. fu ñuy dem xanaa ci moom. parce que hmm. Samba moi Mamboy. Mamboy, Mame Boye Samba. alors y a dégg les décision bi nga gis ci ci élimination. Hmm, hein, c'est purement politique. Alors, donc yaa ngi doon xaar cette élimination là. man yàgg ça fait quatre mois. ça fait quatre mois fu ma toog ak damay Sonko du Sonko du jusqu'à la. donc là euh, donc là c'était bien préparé. c'était bien préparé depuis 2021. euh lutak Sonko du ok euh, le août. ok lorsqu'on a euh, jamono bu pour Sonko. à hmm. mois d'août. ah foofu la le sorti du procureur. Parce que les éléments qu'il a évoqués, hein, euh, li là, nous six charges son coup. Depuis, depuis 2021, man, j'avais pris mon temps pour écouter le procureur. Je hmm. xamné ni ki lu muy nek di di c'est des éléments qui xamné été ko doon bind sonko fu di discours tout mode de révolution mu noté ko ñu mm. noté ko mm. xam nga yooyu mooy yooyu ñu indi ko jour bobu di def ay sortie donc japp nga ni révolution baa déranger le mot euh, de révolution sonko sonko état état bi ñi nek ci état bi hein, ñoo ak sonko dafa def ay révolution yu doy war sonko deful ay révolution yu doy révolution dégg la si l'heure a sonné hein, on doit pas rater ça on doit aller avec l'heure. Hmm. Mais si les l'heure, on est là, nous allons retarder. Son colo est incarné Nous gom ci man man kenn la gom ci nguur sama ministre Moussa parce que amul ben problème te du du

loolu ngeen war a xam. Sonko deful faute parcours sans faute la def il a été radié en 2016 2017 député à l'Assemblée nationale complot en 2021. sorti gars complot convoqué réunion d'urgence à l'Assemblée nationale levé immunité parlementaire c'est anormal waxoon à la sanka, ben pouvoir mu am ñu jëli ko foofu hmm? ko à l'Assemblée nationale dem écarté ko législatif.

yow wala man doog lu ma xam benn risque amul ben risque Sonko lepp lu mu wax ci politique la ko tek Boudé man man ma nek président de la république damay xam ne bi ci politique la nek. xam nga am politique il faut nga am un instrument de convaincre Sonko Lamine bu mun wax la de mun apporter nit ci ci ci ci ci ci projet am. ñom comme ko amuñu un instrument de convaincre euh, instrument de convaincre moy lan wah gars yi gars analyser parce que un discours politicien on l'écoute dans un double sens Nous, mm. nous la nous xam mm. c'est la forme mm. lu c'est le fond c'est ce qu'on va euh, un politicien la wara Nous ok Nous Nous, nous Sonko ak Nous, nous Sonko parce que c'est pas des analystes c'est pas des analystes c'est-à-dire euh, analyser pour y waaw da nga analyser. Euh, sur le fond. sur le fond dem exactement son lan le bëgg wax daal décrypter li nga mori ne. voilà moo message diaboliser. le mot gasta gasta on était on était à